من قبل ما يوسيل خليني ربي خليني بالمزايا من سنين من قبلي من وزين لسديم دعوتي ما فرض عني وبما فرض كل زمان لسديم دعوتي ما فرض وبما خرب كل زمان أبلي فضول من وضعي ومعنى المكان مثل جنان أبلي اليوم عليك الكل بخير يعني. واعف عني وعني أعمل خوفا للبرايا والأغنيان ديان وتجلي بيعمك نخديما لكتاب العزيز في كل أبلي اليوم أفضلي منا خائما ساليا بخلان لسفير عروالي أمنا وهدى سنة الأمين المكين لسفير عروالي العظمة الأمين المكين bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàpp leen ni Ndiaye Pro barab bii di barab bu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route Belel jàkkaarloog boulangerie Kayndé Fatma woote leen gaaw si bu liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc